te fi mu ne nii bu demoon élection nga xam ñoom bu dee ne milieu rural lañ yaakaar mais milieu rural dañoo gisul seen bokk ci gouvernance Macky Sall. pourquoi gisuñu seen bopp ci non seen bopp Macky Sall. Sall milieu rural lan moo ko caractérisé mbay sàmm. waaw. Macky Sall qu'est-ce qu'il a de l'agriculture sénégalaise lan la fi def en douze ans dix mois lan la def ci agriculture sénégalaise. non yow kay wax ma. ma wax la agriculture sénégalaise dafa dellu ginnaaw. gis nga bu ñuy coow production yi boo jëlee lu mel ni dugub wala riz wala euh, gerte bu ñu lay coowal ay production jàppal ne mooy production yi ñu amoon dans les années 74 75 ñun on naa reculé gis nga stock semencier Sénégal ban baykat mooy mooy am semence maa ngi liir ñu ne y a que 7 pour cent qui ont eu accès à des semences euh, des ménages qui accès à des semences certifiées gis nga le stock semencier du Sénégal stock bi ñu amoon en soixante dix neuf moo ko ëpp lan la fi def ci mbéy rien alors que mbéy mooy caractériser le milieu rural l' élevage est pareil est idem ñoom moo tax bu ñuy wax bilan. alors monde rural. waaw. Euh, le désenclavement des terroirs le désenclave xaaral rek. waaw ndax tamit nañu waxante. le désenclavement des sama waa commune ñu ngi lay déglu de. le dé oui Fissel Fissel nga dëkk Fissel laa dëkk. Fissel nga dëkk yow. waaw <laughs> <laughs> dëkk. dëkkoo Fissel. dëkkoo sànni xeer nii. <laughs> Fissel laa dëkk déedéet. Fissel Mbadane laa dëkk. dëkkoo Fissel. Fissel laa dëkk. ah waaw ati waaw continuer. Langomaak laa dëkk. ah Langomaak nga dëkk. waaw ah continuer. moo tax ma ne la xam nga Sagar Diouf. waaw voilà le désenclavement des muy banque mondiale muy les PTF amul ku des koo xam amul ku ci joxewul satisfecit Fissel booy dem fisel booy dem film film la booy dem Palmarin. Hmm. gis nga tali ya fa nekk. yow yoonu Fissel bi kañ la. xaaral yow gën nga faa jaar xaaral rek xaaral rek. yow gën ngaa jaar yoonu Fissel wala yoonu njëge ñaaw te te muy. nga dem dans le. sud yow yow yow boo mayee dëkk Fissel góomu ko xam nga li tax góomu ko. xaaral boo waxee yoon xamoo yoonu. xaaral rek wax la xaaral nga dem nga dem dans le Sine nga dem dans le Fouta. nga dem. dans le sud yaa ngi wax mel ni ku nekk APR. nga dem dans non dama lay wax rek. non non parce que loolu non man dama lay wax rek xam nga man moom euh, wax bi man euh, kii ma man dama lay wax rek. non je suis journaliste témoin le désenclavement des terroirs. Mm-hmm. c'est un pan important du bilan de Macky Sall muy benn. benn xaaral rek le PUDC bi ko Macky Sall indee. boo duggee dans certaines contrées. PUDC bokk na ci li nga xam ne. lan nga fa gis ñoo changé na changé na un peu. Mhm. les conditions de vie. des populations heureusement que de vie sont précaires les conditions de vie waxuma nag amul précarité mais dama ne. il y a une le désenclavement des terroirs. gis nga boo ne ma wax la may mun la lan nga ma mënoon wax. ma ko pour convaincre ma soo ma ne woon ndox mi egg na fépp. béykat sénégalais bi mën naa béy douze mois sur douze. loolu moom yeggaguñu fa. ah bon nag eggsee guñu fi ñu war a. est-ce que xam nga ne le paysan sénégalais que xam nga ne le paysan sénégalais nit ñi dañuy wax ne il travaille trois mois sur douze le paysan sénégalais travaille entre dix-sept et vingt et un jours par an tout le reste de l'année amul lu mu def lu tax amul lu mu def pourtant les terres sont là parce que amul ndox bu mu béy parce que Sénégal. dañoo jàpp que ne mbéy mooy taw loolu mooy gàtt gis-gis parce que la pluie yàlla moo ko yor moo koy wàcc heure bu ko neex ak nu ko neexee mais dans le monde bay boo bëggee bay développer bay ci ndox rek nga mën a jaar il faut une maîtrise des ressources en eau boo jëlee les deltas du fleuve Sénégal nga xam ne c'est c'est même pas un bon exemple le potentiel le potentiel des terres yu ñu war a aménager man ko exploiter c'est deux cent quarante mille hectares xam nga Sénégal ñaata lañ ci exploiter lañ ci aménager au total soixante dix mille alors que la SAED engloutit beaucoup d'argent moo tax buñ naan ma Macky Sall li mu def en milieu rural pour man il n'a pas fait grand chose xam nga li tax yow nee nga ma lango maa nga dëkk machine yi ñu doon béyee sama papa sama maam même machine yi la ñuy béyee ba tey. masama dem la ko waaj. nga ne même machine yi la ñuy béyee ba tey boo jëlee buñ ne mécanisation buñ naan ba mécanisation jënd nañ ay tracteurs est-ce que xam nga ne y a que 1,7 pour cent des exploitants qui son vraiment dans la. Aly Ngouille du leen jàppale de Aly du leen jàppale parce que Aly Ngouille nee na les résultats qu'il a qu'il a réalisés dans l'agriculture le bref passage qu'il a fait là-bas mosul am. Aliou yàggu fa. nee yàggu fa. gis nga li mu réalisé ci résultat agriculture sénégalaise may mun a du ay mois nga koy defar il faut avoir une vision prospective c'est-à-dire planifier parce que dañ naan qui ne planifie pas son projet planifie son échec ñoom du ñu planifier saupoudrage la ñuy def gis nga boo bëggee développer mbay mi en milieu rural gis nga les exploitants famille les exploitations familiales. moo war a nekk cëslaay bi ñun loolu mooy sunu cëslaay il faut nga jàppale exploitation familiale yi ba pare sécuriser leur terre parce que qu'est-ce qui se passe dans notre zone là li li dale la Njegem Njegeñaaw Sandiara Caajaay Fissel qu'est-ce qui se passe mais des gens ñoo juge en ville ñoo jënd ci suuf si pour faire de l'agriculture paysans yi amuñu moyen yow bu fekkee ne sa famille xiif na sa sa doom amul lu mu jànge nga jaay suuf ba donc genre expropriation sax moo am en milieu rural. mais mais mais mais mais. Euh... donc bu ma leen déggee ngeen naan. li mu def en milieu rural. Daouda ma j'ai pas vu le résultat et li ma lay wax nii c'est pas. mais parce politique non non du tout. li ma lay wax nii mooy la réalité. mais Daouda euh, dans le domaine de l'agriculture ñoom dañoo tegoon seeni délai 2017. pour auto autosuffisance beeg <laughs> mécanisation disponibilité des sem de de de nu mu tudd renforcement du capital semencier. loo dans ce domaine-là et et je n'ai pas compris pourquoi il n'y a pas eu comme on l'a fait avec les infrastructures une grosse offensive pour l'agriculture euh, qui caporalise euh, plus de 60 pour cent euh, de la population. mais. nga ne gisoo ko dans ma ne je n'ai pas compris. pourquoi il n'y a pas eu. une grosse offensive mhm. pour le compte de l'agriculture comme ni ñu ko defee ci infrastructure yi mais dafa am boo demee dans les zones rurales ay jéego yoo xam ne teg nañu ko fa te faut pas faut pas faut pas faut pas être nihiliste euh, jéego bi gën a important mooy le désenclavement des terroirs des axes routiers euh, mooy le PU mooy mooy mooy le PUD mooy le PUDC et l'allègement Maïmouna, je ne dis pas que le PUDC defu fi dara euh, pour les femmes je ne dis pas que le PUDC ñett yi aussi mënuñu ko mënuñu ko teg de côté waxuma la ne PUDC def fi dara mais soo demee en milieu rural nga xam ne c'est comme une goutte d'eau dans l'océan nee nga comprendre li tax li ñu def dans les infrastructures mënuñu ko def dans l'agriculture la réponse elle simple gis nga ñi agriculture nekkul seen priorité